ay ci mbokk yeeg xarit yi suivre solution TV solution info mbégte la ñuy am saay su nekk altine bu jot bu 21h jotee ngeen jàkkaarloog Mathiguène Diop ak Sa Ndiogou Meng ci l' émission des émissions tey jii nag ci altine ji gannaaw ba euh, waxtaan wi fi fa yéene sekk balay loolu rek dañuy daal di mboolem euh, internet yi nga xam ne ñoom ñuy suivre fii ci biir réew mi ak bitim réew di bàyyi xel solution TV dem nag ba ci waanu Ceskaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport leen jàmm ñaanal ko itam sëriñ di mu sëriñ la Lahat Mbàkke yàlla suñ borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram te koy ñaanal mbooleem xalif yi ci biir réew mi yëpp waaye nag balaa ñuy xuus comme niñ koy defee saay su nekk rek dañ koy daal di jox kàddu gi moom alaaji sa njogu meng mu nuyoo ko internet yu suivre solution tv ak solution info alaaji maa ngi lay nuyu ma jigéen ñi ngi lay fay di la yi nga xam ñu ngi nekk ci biir réew ak bitim réew fu waaye mën a nekk ñi nga am ci ñëpp mbégte ak kontaante mm-hmm. eh, di dem ba tuubaa nuyu xalifa général des mourides sëñ Mountakha di ko mu di nuyu sëriñ sunu xarit mm-hmm. sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñu koy mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziar bu wér nuyu bu baax Xaadim ne ca kër ga njaboot ga yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke borom ak Karim Ahla mm-hmm. nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi ziyaar ñëpp di am ci ñëpp mbégte ak kontaante macha allah. ayca mi ngi noonu jërëjëf euh, Mbengue euh, comme ni niñ koy defee nag saay su nekk topp tey jii nag daañuy waxtaanee euh, kii di commissaire naa Keita mi nga xam ne doon na sekk waxtaan ak Ndeye faatu Ndiaye moom nag tàyyiwul ba tey ci xeex ba mu nekk ndax nee na kii di premier ministre bi di Ousmane Sonko nee na moom daal dafa occupé daanaka lépp loo xam ne mi ngi yees ak ay ndogal yu jógee ci gouvernement bi moom daal dafa mel ni moo ci ëpp doole lool bay wax itam. nomination yi nga xamante ne ni daanaka génnul biir Pastef bay daal di félicité waale kii di Alioune Tine moom nag nee na li mu wax ci pastéfisation wu état bi daanaka euh, leer na ba noppi ba wax ne Sénégal fi mu nii dafa réer daañu ci ñëw indi leen vidéo bi daal leen koy diktal ngeen suivre ko su ko defee alaaji indi ci xalaatam buñ ci noppee Adama Gaye moo nekkoon invité RFM matin tey jii ci suba si moom nag ñëwaat na ba tey ci euh, lii nga xamante xamante ne ni Ousmane Sonko ak Diomaye fay sekkoon nañ ko ak ancien président bi di Macky Sall nee na nag li tax ba tey ñu teg conc laa ko mën a tibbee euh, ci yenn ndogal yi nga xam ne jëloon nañ ko dem na sax ba Babacar Fall ci jëme boppam di ko laaj ndax Sonko mi est-ce que euh, tout va bien ci ci boppam ñu jeexalee ko ak ma Massamba Mbuub mi nekk fii ci Walfadjri ak ma suuf Cissé ñoom ñaar nag ci waxtaan dem nañ ba xëccante am ci jëm ci li nga xamante ne ni moo di doxalinu gouvernement bi Mansour Cissé nag nee na moom dafa jàpp ni impôt yi nga xamante ne ni boobu ba léegi moo di coow ci biir réew mi euh, gouvernement bi daf ko bëgg a jël def ko arme ngir xeexee ko Massamba Mbuub weddi li ni mel ba set wecc léegi léegi lañ leen koy daal di digtal ngeen daal di koy suivre dañ koy dooree nag comme ni ma ko waxee tout commissaire naa Keïta moom nag fi mu toll nii dafa taxaw tem rek daanaka mel ni kuy opposé wu ci lii nga xamante ne nii gouvernement bu yees bi ñu ngi koy doxalee la mu yëkkati ci ay kàddu ba wax dëggal lii nga xamante ne nii moo di Alioune Tine waxoon na ko ñu dem suivre ko te dellu si àllaaji indi mooy wane yoon wi moom mooy yi tamit mooy indi tegtal yi nga xam ni moom lañu war a doxale réew mi mooy jël décision yu majeures yi gouvernement bi appliqué ko ñun ñuy xool boobu ba léegi am nañ ci quelque indices ci situation bi nga xam ni moom moo nekk ci déjà nomination yi. dafa xaw mel ni ci biir nomination yi esprit wu parti bi dafa dominer ci esprit wu état bi. parce que même ñi nga xam ne dañ leen nommé seen genre comportement en tant que dafa mel ni dañu indi ay discours parti anticiper ci lu bari donc parti bi moo accaparé état bi te parti bi du président de la république parti bi Ousmane Sonko la le premier ministre soo xoolee ci profilu nomination yëpp loolu la joxee maa ngi gis d'ailleurs euh, Alioune Tine je le félicite au passage mhm. mu ngi dénoncer loolu ci sorteem bu mujj bii di wax que ni fii ñu toll nii tey dafa mel ni Pastef dafa dominer état bi. Mm-hmm. on on assiste à une pastéfisation de l'état mm-hmm. noonu la ko waxee loolu mooy premier signaux yi mais deuxième signaux yi dañu gis ni président bi kat. ci ay anam moom li nga xam ni surtout suñu préoccupation la muy diplomatie ak défense mm-hmm. dafa absent yeneen politique yi demul politique économique ils ont passé leur temps à renier li ñu waxoon dañ def yëpp defuñu ko mm. fi ñu waxoon dañ fay jaar jaaruñu fa xamuñu lu ñuy def tey Sénégal dafa riir complètement mm. xamuñu ban direction la ñu jëm xamuñu sur la base de quoi on fait de l'économie on fait de la politique kàddu yi nga xam ne Cheikhouna Keita nekkoon fi commissaire yëkkati na ko jëm ci doxalinu euh, premier ministre bi di Ousmane Sonko nee na doole ji mu am daal ëpp na ba jéggi dayo bay wax ci wàllu Pastef ni mu occupé état bii di euh, nga xamante ni mooy SBS. non say wax dana parce que boo dégloo moom li mu wax yëpp dafa tënku ci dafa mel ni dafay nuru am nañ ay indis boo seetee waxut dara. ku toog koo xam ne nag waxut dara ñi nga xamante ni bii dañ koy tàllal micro man moo may jaaxal parce que koo xam ni dafa tënku ci ay signaux yi ñuy gis mbir yi dafa mel ni dafa kii dafa maanaam ci ay njort ak ay kii dong la demee ah. maanaam moom li muy wax xamu ci dara te dafa ci ni mu koy waxee sax da ngay yëg ni li muy wax dara la ci xamut mais alaaji bu ci xamul woon dara dina bëgg léegi nag mu ne dafa mel ni gouvernement bi dañoo daan ah, moom moo réer moom moo xamut yëf yi naka la mu jëm moom ci boppam moom ah. moo réer xam nga moom bu xamoon rek du baax euh, dafa war ta xam nee na réerul de nee na ah, Sénégal moo réer non Sénégal Sénégal Sénégal xam nga yow réer nga yow déedéet li ñuy teg leer na ci yow wala leerut ci yow ba ñàkka leer na ci yow leer na ci man moom mi mu ci moom moo war a xoolaat ndax am na capacité pour mu leer ci moom wala déet moom bu leeroon ci moom rek baaxut lim ñàkk leer ci moom moo tax mu war a jàng ji jéem transformé wu moom jëmmi boppam defaruwaat parce que moom daf ne woon li fi nekkoon baax na ba taxoon mu ànd ak ñooñu ne li fi nekk baax na ñi ëpp ci sénégalais yi ne li fi nekk dafa bon du dëkk kon moom xàmmewut mbon ak mbaax léegi moom bu fekkente ni bi moom moo ñuy gindi bu lay wan yoon bu nee la lii mooy baax jàppal ni loolu ak mbon la Ah, mais alaaji dafay lim ne ak mbon la jàppal ni lii mooy mbaax. mais moom dafa sukkandiku ci Aliou li mu waxee rek. pour dë sukkandiku ci moo njëkk a wax Aliou Tine dafa dem ba ci biir. Aliou Tine waxi Aliou bëgg a jafandu ci waxi Aliou moom moo njëkk a wax Aliou Tine moom ba muy créer mouvement bi moom ak ñetti nit ñooñu taxaw fële conseil conseil boobu Aliou Tine waxagul. Ah, te booba lii muy wax la waxoon. léegi dafa dëgërloo waxi alintin moo tax mu naan maa ngi koy félicité dafa bëgg a wax ne li muy wax moog Aliou ñoo bokkul li ñuy wax. comprendre nga. Hmm. foofu la bëgg a waxee mais nguur Pastef mais lu tax bi lacrymogène di ñëw waa Pastef a ko doon nooy. Hmm. bi kaso ñëwee waa Pastef ak ñi leen sopp ñoo ko doon ñoo doon dugg ci kaso gi. léegi ñu ne post yi ñëw na ñu ne waa Pastef moom waruñu cee kii déedéet waa Pastef li ñuy wax naan gouvernement bi ñu ne dafa bëgg ban terme la utiliser ci sax. dañu bëgg. li Alioune wax parce que terme boobu la bëgg pastefisation waaw mais mhm. euh, grenade yi tamit dañ ko pastefisation woon mais pourtant kaso yi tamit dañ ko pastefisation woon mhm. yooyu yëpp pourtant alaaji ñoom dafa mel ni comprendre wuñu parce que ministre yu bëri dañu wax ni bokkuñu woon sax si sax ngay ñëw ci ministre yu bari loolu ñoo la ko gën a xam ñoom ñoo réer di bëgg a réeral nit ñi xam nga loolu mooy yow li nga xam moo tax ma ne la yëf yi leer na ci yow wala leeru ci yow ah, xam nga yow xam nga ni yëf yëpp demee. xam mm-hmm. gis nga post yi ni nga xamante ni bi noonu la demee. ñi yore nguur gi. Mm-hmm. donc ruube gi ñuy ruube nii defe nañ ñi mën nañu yëngal tarafatal ay ni ci ñi nga xamante ni bi ñooy askan wi fal le président Diomaye defe nañ ni mën nañu koo jiixi jaaxaloo wala mën nañ jeex jaaxloo askan woowu ñoom boobu la ñuy nelaw askan wi fal xam nañ ñiñ fal askan wi yeewu nañ démb ñoom ñooy nelaw ñoom ñi nga xam ne ñooy nelaw nag ñoo yëgagut ni askan wi moom ña ngay dem nekkatuñ ñoom fi ñu nekk comprendre nga moo tax démb nag Ousmane Sonko dimbali na leen parce que yii ñuy jéem a def ni seen manigance yi démb wax na leen ne leen digganteem ak jomaay mm-hmm. maanaam ñoom li ñuy jéem a ker créer pour yàq ko bu yeboo ñu xam ni ko koy def ndeyu ndeyam juddoogut comprendre loolu nekk na loo xamante ni bi wax ju leer la mm-hmm. kon ñoom nañu ànd ak dal te xam ni li ñu bëgg doxut munta ne. Ah, mais moom jàpp na ni moom. yaa ngi dégg ci dëgg de te nee ah. bàyyiwul. jàpp na la du bàyyi de moom moo nekk si dëgg affaire yi. waaw mais moom na jàpp man kay mu terewuñ ko mu jàpp lii mu nekk nii baax na lii mu nekk nii mbedd la moo xamante ni bii <laughs> mbedd ma bokkuñu mbedd bokkuñu yoon ñun ñu ngi jaar ci yoon woo xam ni. Hmm. Sénégal gu jub nit ñuy jubal ne ci. loolu lañ bëgg. Hmm. Sénégal goo xamante ni bii képp kuy sénégalais. war cee gis sa bopp léegi yow bu dee yoon wi baaxut bugguma cee ne ginnaaw yàlla dogal na moom amul benn post boo xam ne yor na ko bu mën a gàllankoor yoon wi alhamdulilah na dem ak yoonam. ñu ngi ah, jaar mën nañu influencer ñenn ñi de. kan lañ mën a influencer commissaire kay. <laughs> ah moom këram sax mënu leen a influencer mën naa mën na influencer ñenn ñan lay influencer. mënut kenn. mi ngi wax daal. waaw mais wax. amul problème nit ñi mën nañ di wax seen xalaat man bañuma ko mu wax xalaatam ah ci pénc mi. Hmm. mën na wax xalaatam ci pénc mi mais nag na xam ni man dama koo bëgg a dimbali rek parce que kilifa la am njaboot goo xamante ni gii wax dëgg fa yàlla sénégalais yi naw nañ leen ci seen taxawaay ak seeni doxalin comprend nga. Hmm. mu war leen a dimbali jàppale leen. Hmm. comprendre nga parce que am na comportement boo xamante ni boo ko yoree ci pénc mi tamit vraiment da dem ba mujj gi. sa bopp rek ngay kii kiiwal quoi maanaam nit ñi nekkuñu ci état d'esprit bi nga xamante ni bi moom la ne yëf yi mm-hmm. alhamdulilahi bu soobee yàlla dana dox commissaire Kayta mm-hmm. bu soobee yàlla bu kiiyee rek après loo jëndee guro gars yi dinañ ko lijjanti nga xam ni réew mi doon moom moom dafa mel ni soxlawul ku ko jox lu mu jëndee non waxuma jëndee waxin la quoi ah, maanaam euh, njabootam ak ah, yooyu waxuma ko ne pour yeneen nit ñëw jox rek parce que euh, waxuma état buy joxe kii wag déedéet noonu mm-hmm. nekkuma ci yow quoi maanaam sëtam yeeg kii yam waxe quoi angle boobu laay waxe quoi mais na xam ni mag la te mm-hmm. toog daa dee dal mm-hmm. bàyyi Euh, état bi ñu kii parce que ñoom mënut mënu leen a gàllankoor quand parce que mouvement boo xam ne bi mu tàmbalee ba nëga ni ñeenti nit nga am nga bëgg cee xëcc ah, Aliou Tine xam naa léegi nee na nee na bu ñu dajee woon place de l'indépendance mu neex mere na sax préfet dogal bi mu jël pour aaye leen seen sitting bi kon alaaj ñoom du ñu ñeenti nit kuy woote sitting kay xam nga ni doo ñeenti nit ñooñu représentant yi lañ rek même si ba sax bu woote woon mën naa bañ a ñëw <laughs> moom ci bopp. doy na waar <laughs> commissaire Gaye daal. Ah. Ah. ñu ngi koy masaw di ko wax ne ko daal dina gën yàlla na ko yàlla may xolu muñ. allahumma parce que rek dafa am ñu bari ñu soxla. Mm. muy xolu muñ. waaw te war nañ leen koo ñaanal. parce que réew mi moom wax dëgg fa yàlla. Mm-hmm. li borom bi bëgg moom ku ko bañ. Mhm, da ngay sonn lool te li sunu borom bëgg mooy lii nga xam ni. Mhm. noonu la yëf yi di doxee kon donk nañ bañ a sonal seen bopp rek nañ nangu. Mhm. waaw ku nangu lu yàlla dogal de doo sonn sa xol du jeex noonu la ko olof Ndiaye waxee kon nañu jéem a noppalu ko ji rek euh, comme ay mag lañu Adama Gaye nag moom tamit ñëw na ci euh, Ousmane Sonko euh, diggante mag Macky Sall la fa xewoon nee na looloo tax tey jii nii yenn yu bëri. ba léegi nii mënoo su cee euh, teg tànk lu ci mel ni milliards di 1000 euh, milliards Covid bi ak 94 milliards yi mu doon wax dem aussi ba Babacar Fall am na benn question bu nga xamante ne ni peut-être mën na déranger sax bu mu ko euh, posé ñu dem déglu leen te dellusi on peut comprendre que ñoom am na lu ñu waxtaan ak ma Sall pour ñu may leen ñu bokk ci élection yi am na peut-être raison yoo xam ne ñoom ñoo ko xam man xaw ma ko mais toujours est-il que am na yoo xam ne dafa fes commencé génn te dafa mel ne dafa am lu tënk seen loxo mënuñu bouger lan la ñu xaar pour régler ay building administratif avec l' argent yi kay ci englouti là-bas ba léegi ñi ko ñi ko def xam nañ leen bougé wuñu lan la ñuy xaar si Covid bi ñu naan euh, bon dans les quelques jours bon ok loolu lañ laaj dañ leen seetaan mais en réalité am na moment yoo xam ne dëkk bi fii mu toll action bi ñu soxla c'est des actions immédiates am na si loo xam ne su fekkee ne am na séparation de pouvoir authentique loolu ñeneen ñoo ko war a jël mais dafa mel ni plus ñu koy gis plus ñu ngi bàyyi des choses continues. ce sont des dérives. ah c'est des dérives graves. parce que lii fi xew la mu wax démb par rapport à cette justice euh, ne waa ji moo ko laaj li mu si xalaat ak sa déclaration sur les médias wax ne li fi xewoon du fi amati kenn du ko bindati kenn du ko waxati loolu c'est très très grave parce que su fekkee ne yow mën nga d'autorité nga taxaw wax ne lii mënatul am si dëkk bi. mën nga xëy suba teel ne démocratie waaw mais mënul napp kenn il faut que mu leer nañ nañ ko wax ñun dañoo xeex pour la démocratie et la liberté d'expression mais Sonko Sonko lu xew euh, est-ce que ça va ah <laughs> écoute xam nga man je suis pas un psychologue ni un spécialiste des questions mentales je suis non pas non plus quelqu'un qui dans une tasse de café pour essayer de comprendre est-ce que il est dérangé ou pas non hmm. c'est pas à moi de le dire par contre dama ne su fekkee nit mën na jug taxaw li li fi xewoon du fi amati yow yaa koy décider kon su la neexee nga xëy suba teel na léegi liberté d'expression du fi amati élection du amati alors que adduna bi yëpp ñu gis c'est chahuté on a vu en France hier on a annulé euh, on a battu n'est-ce pas le parti du président on a été obligé de dissoudre l'Assemblée on voit le raz-de-marée euh, de la droite et des forces populaires voilà toog yow <laughs> dafa mel ni vidéo bi fa mu dooree euh, lii woo ko mais bon grawul dinaa ko expliquer alaaji ak li mu jot a dégg alaaji wax na euh, si diggante woon ak Macky Sall loolu sax laa euh, indi woon bi may annoncé élément bi euh, nee na looloo tax ba léegi yenn dossiers yi mi ngi wax sax bay wax si affaire building administratif bi mais moom dafa mel ni ba fa Sonko di dem di saytu yi ni mel moom fekkeewu ko te aussi question bi nga xam ni Babacar Fall indi na ko ak tontu bi mu ko tontu moom Adama Gueye non moom daf ne daf ne yëf yi dafa yeex boo dégloo parce que wax na lu jëm ci building bi wax na lu jëm ci mille milliards yi ñu génne woon ci Covid bi. Mhm. dossier yooyu fan la ci yëf yi toll ak yooyu. affaire yi dafa yéex ak yooyu loolu la loolu la wax. non lu jiitu nee na est-ce que du seen waxtaan bi moom moo yéexal affaire yi. waaw loolu yëpp xam nga ndax du seen waxtaan xam moom dafa benn siiburut euh, actualité xam nga journaliste bu xamut lu xew tamit. Mhm. loolu erreur la. Mhm. xam nga paay yi ñoom. <laughs> ñoom parfois parfois dañuy dalaw quoi xam nga xam nga dañuy tëggu ci dalaa leen intellectuel nga kii nga comprendre mais maanaam duñ njëkk li xew xam nga ministre de la justice yëkkati na ay kàddu wax ne après joxe na date après tabaski am na dossier yu bari yoo xamante ni bi dina tegu ci table loolu moom bu ko yëgee war na xam ni yii muy lim yëpp mhm. ci kanam la mhm. donc moo tax gars yi di wax naan gars yi dañ leen di yoxal pour ñu lekk seen ndawal ak yooyu ba pare ñu soog a ñëw ci seen kii comprendre ñu ñoog a ñëw ci seen dossier loolu moom xam na ko Ousmane Sonko bi muy wax tamit dégg nga ko dossier yi nga xamante ni wax na ko wax na ni il faut que tamit réforme yi nga xam ne moom la def ci justice tamit yooyu yëpp ñu ko kon donc yëf yi nga xamante ne bi mbir mi muy wax ne dafa yeex dafa am lu war a jiitu d'abord pour defar ko ba ba nga xamante bi kii tamit dinañ sàmmoo ak xam ak yelleefam ci yëf yi comprendre nga parce que tamit am na loo xamante ni bi xewoon na fi ba nit ñi kenn ku ci nekk euh, di di ci li nga xamante ni bi moom la ñuy wax sunu justice nit ñi ku ci nekk di ci poser ay questions donc defar ko ci li nga xam ni mooy rapport yi ñu mu kii ñu mujjee def. xool loolu ba noppi nag li nga xamante ni bii moom ministre de la justice annoncé woon na ko defe naa ni loolu nekk na lu am solo. ñoom dañoo jàpp ne affaire yi daar daar la war a doon. dafa war a xam nga loolu mooy li nga xam ni moom la kii quoi mais dégg nga l'autre gars Babacar Babacar tontu bon mi ngi wax wax joo xamante ni bi xam nga mm. du du wax yi ku ànd ak yar déedéet waaw parce que ak nu mën di demee il faut respecter le premier ministre mm. jox ko cër mm-hmm. mais gis nga ko même buy buy wax moom ci sànq ni moom dafa am problème moom moo war a xooli ji mm. parce que kii bu xamoon nit war na ko wax ne ko yow mii est-ce que waroo dem xooli ji yow ndax yow est-ce que ça va parce que jàpp naa ni moom moo am problème mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. parce ki muy wax ni moo am problème kooku tey sunu borom moom la jox màqaama moo xamante ni moo mën a taxaw ne votel leen diw mi ñu votel ko moom Babacar Fall lan la fi def ah, te pendant tout ce temps ñu mel ni moom ak ñooñu ñu ngi doon fexe teg ay ndëgg sërëx pour lii du am kii dox ci seen kaw ba noppi ñu bëgg koo jàppee donc ñoom war nañ xool ban tànk fan lañ nekk quoi ñoom est-ce que ça va man nag dama wax ne comme li waxoon ci matin rek ma ne Babacar Fall man dama jàpp ni moom moom moo am problème quoi moom jëmmi boppam. moo am problème. ak c'est pas que ni dafa am non am Sonko problème parce que bokkuñu fu ñuy boxe ah, mais tout le temps day. mais moom moo am problème. loolu mooy problème maanaam di wax ak nit ku la wuyuwut faalewu la di doxal li nga xam ni moom lay doxal yaa ngi dégg. Mm-hmm. te booy wax ci moom ñu sentir en koo xamante am nga ko à travers nit ki xam nga nit ki mën nga joxe sa xalaat mën nga bañ a bokk ak moom gis-gis mais buy wax ci. le premier ministre ci sànq ni kii dafa mel ni am na leneen lu ñu séq wala leneen loo xamante ni bi moom la ko xañ question ba sax dafa war a woon nag non question bi bon je ne sais pas. laaj nit ki est-ce que ça va. waaw est moom moo war a xoolaat boppam ndax euh, normal na wala normalut parce que pare na saa nit ñi lay xool man maa ngi koy demander ndax moom est-ce que lépp dikk na quoi parce que jàpp naa ne bu lépp dikkoon dina am neneen noo xamante ne bi noonu lay comporté woo quoi. parce que kii dafa teg ay acte bu fekkee ne bii fay leen impôt nga ne fay leen impôt. <laughs> nga ne dañuy acharné ñii dañuy acharné wu. dañoo bëgg a daaneel kër kii. fay leen ko lañ leen wax. et pourtant moom loolu moom dafa waroon wax sax ne état mi ngi ñuy xeexal. Mm. parce que employé la boo xam ne bi weeru dee ñu dagg ci salaire am ne ko dagg nañ ko impôt boo xamante ni bi waaja yóbbu ko fa mu ko war a yóbbu. Mm-hmm. donc moom est-ce que ça parce que koo xamante ni ki yow ñi ngi lay xeexal li ñuy wax. say mbir la nga naan lii est-ce que ça va te donc ñoom nañ jéem jéem a dem IPRES jéem a xool ji ndax seen retraite ñu ngi leen di verser wala déet parce que ku mën a lekk sa impôt mën a lekk sa retraite boo deful ndànk euh, lañ leen di verser est-ce que ma ngay yegg wala yeggul ñoom journalistes yi fi mu doon loolu la ñu waroon a def priorité ñoom ñëpp dañoo waroon a dem vérifier ji xool ba xam mm-hmm. ndax ña parce que retraite day bette mais xëy xëy rek nga daa di dem li jënti kayit yi ñu amoo fi dara comprendre parce que ki mën a lekk li nga xamante ni bii moom nga doon kii imp ba noppi mm. mën nga ko fuuf lekk donc il faut bon moom est-ce que ça va ce gars mm. donc na delloo si xelam quoi. Eh, ah man dama koy dama koy yërëm <laughs> ah euh, doy na waar yërëm naa ko lool. waaw doy na waar trop mais bon yàlla baax na Sonko moom nee euh, lu ne dégg na ko lu ne gis na ko. lu ne bindal nañ ko ko lii ñuy def nii c'est ne bu ñu ko saf nañ xam ni ñii faale wuñ yooyu de. Mhm. faale wuñu yooyu. bu leen teg pression mhm. waaw ñu delloo si seen xel rek. waaw bu baax a baax réew mi daa dee dox. Mhm. ñun ñëpp a ko bokk. mais il faut nit ñi nite. rafetal. d'accord mi ngi noonu ayca Massamba Mboup ak euh, Mansour Cissé ba tey ci fayum impôt bi nga xamante ne ni booba léegi coow li noppeegu la fay ñu dem déglu leen ñoom itam te dellusi boo toogee nga ne ñenn ñi dañu dañu dañu jël impôt bi di ko xeexee loolu c'est pas vrai. d'accord Zeyna rapidement du dëgg. yow li nga wax moo dul vrai yow. yow yaa waxul dëgg booy. mais li nga wax du dëgg Mansour. yow yaa waxul dëgg boo nee dafa dañu jël impôt bi di ko xeexee c'est pas vrai. yow yaa waxul dëgg du dëgg. mais Mansour euh, d'accord xoolal wuy ma wuy ma xam nga Mansour li ma lay wax nii defal naa ko ñu wax ak yow xoolal. yow la ñu war a waxal yow yaa wax ak man. Ah, yow mën nga wax ak man. Ah, Mansour defal naa yow mën nga wax ak man. yow ah, wuy ma si si si defal naa ko. yow on n'a pas le même niveau. on n'a pas le même parti. waaw d'accord amul problème. wuy ma wuy ma waxal la neex man lan ma ay yow Yirim Seck yow tu es Yirim Seck numéro 2 tu n'es rien ma ba ba tu es Yirim Seck numéro 2 tu n'es rien kan mooy kooku yow quand même sax yow yaa xam xam nit ñi kan mooy kooku yow yaay kan doo dara doo dara kooku mooy Yirim Seck yi jaay amu boy oui moom moo ñu ñi moo moom nit ñi. yow doo arrêté yow. danaan lànk përal na niveau yow yaa xam-xam ñëpp yow. yow doo dara Mansour. yow yow yow doo dara. yow doo dara. yow yaay kan yow kan. dégage waay tu parles dégage toi yow. s'il yaa moom nit ñi. mais calmez vous. tu duñ ko nangu. yow yaa non yow yow en train de manipuler l'opinion. non yow mënoo sax manipuler. parce que tu n'as pas le niveau. tu n'as pas le niveau. d'accord ni l'écran. j'ai pas le niveau. ni l'espace intellectuel. ni l'épaisseur. apport nest pas. d'accord naa Mansour. d'accord naa mais tu n'es rien. mais yow yow dara yow dara nga yow. ah doy na waar de euh, ñoom de dañoo toog ci plateau yi pour di gindi askan wi ak di leen sensibiliser suñu demee nag ba ñuy toog di tamante de waxu doon nit kuy wax dëgg alaaj ji ci mbirum fay impôt yi ba tey maasu moom la kenn mënut a moom chaque jour ak fi muy euh, fël. waaw xam nga maas nag moom vraiment dama ko yërëm parce que mënut xuloo <laughs> parce booy xuloo ak nit. xam nga sëñ Babacar sëñ Cheikh da doon nett mu ne sëñ Babacar da ne. Eh, dee leen jàng tontu te bañ ji jàng xuloo xuloo borom jot a koy def. ku am jot. Hmm. Eh, mais boo déggee maas mbuub bi muy wax ak waa ji maas mbuub dafa defee ne day xas waa ji te xamul ne da koy tagg parce que waa ji li maas mbuub di wax loolu la yàgg a incarné mais amul ku ko ko tuddee maas mbuub ne ko Cheikh Yirim numéro 2 parce que moom day yirim yirim lu. boo seetee waa ji fi mu toll nii xam naa ni xol bi sedd na bi ko maas ne Yérim numéro 2 <laughs> Yérim mooy idole waa ji quoi. ah waa ji gisoo ko ay kiiwam day fexe di wax loo xamante ni amu ci benn preuve. Mm-hmm. day wëndeelu rek créer histoire yoo xamante ni bi dara existé wu ci. Mm-hmm. ba noppi nag fexe la ko kii quoi ba noppi naan maa ngi ci niveau d'information yëgut dara. waaw moom xamul lu xew gis naa ko temps passé mu def ak Ngone Saliou heureusement que ni Ngone Saliou nand na ko. Mhm. ne ko yoroo dara. Mhm. <laughs> mu naan non duma ko nettali fii yoru dara. xam nga loolu la c'est que dafa comprendre ni sénégalais xam nga Yérim dafa exploité loolu. Mhm. Euh, réeral ci sénégalais yu bari quoi moom nag mu defe ne yoon woowu bu fa jaaree. dina mën a nekk quelqu'un quoi xam nga booy yi dañ ko doon yëkkati di ko tam-tamal xam nga booy yi tamit booy Pastef yi mën nañ lu ne maanaam jamono ji muy ànd ak ñoom léegi nag defe na ni affaire bi moom la te yëgut ni affaire bi Sonko la maanaam dafa nekkoon ci ngelaw ci kiiwu Sonko léegi nag boo seetee fan yi dafa commencé jéem a def lii quoi am contre contrecarré bi mm-hmm. eh, bul defee contrecarré bi amul lu ci ne de lu ci ne dafa am dafa am ñaari mbir eh, gis nga opposition pour def clin day opposition xam nga eh, Waly Diouf Bodiang nee opposition milliardaire pare yenn saa yi gars yi def clin day opposition wu pour wan leen ne leen mën naa jàkkaarlook gars yi am na ñoo xamante ni bi système boobu la ñu bëgg a commencé mm. di doxal mm. dama ko seetaat nag c'est moom tamit dese naa muus quoi booy bi parce que booy bi waaw <laughs> man dama dama dama ko yërëm quoi dama ko seetaat mooy bi ñu falee Pape Alé RTS muy nett li benn histoire quoi mu ne benn gramme dana ko woon mu ne boobu da doon wax naan documentaire bu ñu waroon a def ci Sonko def ci kii ak yooyu nee na benn gramme na ko yow nag la yow la ñu waroon a jox RTS. loolu waxi nit <laughs> bi ma ko déglee waaye dafa def booy bii moom est-ce xam nga parce que da lay wóor ne la rek. maanaam esprit bi mu yore quoi. Hmm. day ah, day am jéem a anticiper. daan ah, boo nee na boo def documentaire explique quoi deful di pro def ci kii yéeg expliquer affaire yooyu rek. waaw ne na boobu nee na bu ne grand bi na ko yow yow yow la waroon a jox RTS. yow booy ne ko yow nee na mu ne ko yow booy da nga am ay idée quoi. idée yoo xam ne toog naan am naa information te information yi doo ko. mën amul benn xibaar preuve ko mës a génne. amul xibaar amul benn xibaar mais nag maas boo ëllëgee booy euh, xuloog nit. Hmm. bul ko takk. mais El Hadj li ñuy def nii est-ce que c'est normal tamit. yow yaa ngi toog si télé ñëpp di la seetaan mag ak ndaw. Mm-hmm. ku nekk di wax sa morom doo nitu dëgg wax doo wax wax ko te dëgg mm-hmm. si ay mag yi toll ni ñoom. waaw xam nga xam nga Mass li mu ko wax noonu xam nga bu taxawee wax ni impôt yi dañ ko jël pour xeex loolu mooy euh, loolu mooy ñàkk xam xam nga bu fekkonte ni bi xam na. Mm. loolu du ko wax parce que gis nga nguur gi. Mm. du ñu xeexee kenn leen. ah peut-être day dëggal li ñoom ma jàmbal ak. Ah, Bougane wax xam nga Bougane Gueye wax na ne. loolu clé day la rek ci <laughs> beneen côté xam nga temps yi yëpp ñi nga xam ne ñi ngi dal ci kii yëpp. Ah. ñi ngi dal ci Sonko yëpp ñi ngi am place. Hmm. am na boo seen seen beneen booy gis nga ko temps yi bëri na place. loolu seen TV gis nga léegi booy bu kii rek léegi dafa mel ni. ubbi bunt xam nga ñoom ñëpp ñu ngi ubbi ay buntu di kii quoi mm. maanaam euh, am na loo xamante ni bi te tamit opposition bi dañoo yor xaalis fi mu toll ni ndax danañ ci joxe wala ñu joxe lool ci kanam lay kii nag xam nga tey jii fi mu toll ni état bi am na acte yoo xam ne bu ko tegee rek commencé doxal léegi incha allahu rabbi ñii ñëpp nga xam ne dañuy lijjanti pour lijjanti seeni mbir mm. parce que ñoom ñi xam nañ ñi ministres yi duñu leen jox dara de ministres yi duñu joxe naada wala kase gis nga ministres yi mm. wóor na yàlla ku fi joxe dara di joxe xaalis sax gars boole la lu leer laa la non ku fi joxe xaalis di fi def ki maanaam xam nañ ñi fii doxut hmm. maanaam xam nga pareen saa yi da ngay nekk ci lenn ba ci yàgg ni yée ndekete lii baaxut ci man loolu moo leen dal ñu bari fi mu doon chroniqueur yu bari parce que gars yi accédé nañ au pouvoir léegi yor nañ nguur gi am na yu bari yoo xamante ni bii tey nguur gële bi mu fa nekkee mën nga daan lijjanti ci yenn yi système bi. Hmm. mais nag gis nga dafa toll foo xam ni yooyu mënatu la ne. Hmm. comprendre léegi nag jax si am na chroniqueur yu bari léegi ñu génne leen locasion fi ñu dëkk ne leen génn leen parce que parce que seen <laughs> salaire yi salaire yi ah, kiiwut de salaire yi nekkul nekkul lool de mm. nekkul lu leen mën a train de vie bi ñuy mën a de mm-hmm. waaw mënuñu mm-hmm. ko lool de mm. donc moo tax il faut ñu wéeru ji waat ca système ba mm. comprendre nga. waaye mhm. grand ah, mais est ndax dana dox mi ngi aju nag ci waa système ba nag fu mu bu leen justice heurtelee. Mm. dootuñu leen tal. waaw léegi nag fi mu toll nii xam nga dafa war a am xam nga tey jii ni gars yi di jëlee avocat. noonu la gars yi di jëlee chroniqueur. Mhm. yu leen war a waxal am na ñoo xam ne ñu ngi def ay recrutement parce que xam nañ ñi justice a ngi war a ñëw ci seen kanam léegi nag ku ne day jaayu fëgg sa dënn wane ni man mën naa def face ak gars mhm. léegi nag fi mu nii. gars yi dañuy jël avocat jël chroniqueur jël ay kii comprendre. Mhm. pour ñu di leen waxal. mais alaaji nag ñooñu nag il faut ñu freiner leen wax dëgg yàlla Ameth Ndoye moom sa bëgg naa beneen yoon nga ñëw ci moom ndax moom li muy def jaru ko jaru ko jaru ko doy na euh, waar de affaire bi yow du asaar na wu yow li ah. ngay def nii tegu ko fenn man damaa xam ne kat moom ah, di di du du du nii nag yow it ah, mais alaaji tamit dañuy bàyyi non loolu dañuy bàyyi nit ñi tamit di toog di wax lu leen neex tamit bàyyi ko mu toog di a Ah. mën na laa indil leneen bàyyi ko rek mu toog di wax lu ko naa ah, xam nga àddina bi moom mhm. eh, lu tëwut a xam dafa yàggut gis nga lépp looy wax ci nit hmm. boo yeboo nay nekk wax ju leer mhm. Ousmane Sonko wax na leen ko démb ak commençant par waa Pastef mhm. loolu mooy ba mu joxoñee Pastef ne ak commençant par Pastef moo leen wan ne la amul keneen koo xam ne di nga fi am donc bàyyi leen rek ñu daal dem nit dina fi wax ba wax lu ko wóorut Mhm. wax loo xam ne sosal fi nit def ki lu la ca dal ëllëg yaa ko teg sa bopp parce que yëf yi moom euh, nekkalu fi kenn mhm. waaw donc booy wax ci nit ñi waxal loo xamante ni bii xam nga ko mhm. respecteel nit ñi loolu ci respecté sa bopp la parents saa yi respecté sa bopp mooy nga respecté ki nga jàkkaar lool mais yii nga xamante ni bii moom ngay gis nii yëpp seetaanal hmm. parce que dañoo nekk ci combat yoo xam ne ay combat jàmbur la. Hmm. defe naa ni nag nekk ci combat sa réew. Hmm. moo ëpp solo nekk ci combat. jàmbur ay nit. wala nga nekk sa combat ñoom ñëpp li ñu amoon nit ñi topp leen. nit ñi dañoo yëgoon rek ni ñu ngi ci askan wi. loolu rek la nit ñi yëgoon. Mm-hmm. mais bés bu nit ñi demee ba yëg ni yow mii. Mm-hmm. nit nga fi nekkal. Mm-hmm. problème day am. problème waaw xam nga fi mu toll nii tamit parce que dafa toll benn période boo xam tamit wax dafa yomboot. am na ñoo xam ne seen vocabulaire li ñu xam mooy sànni xeer rek. comprendre nga. rek. xamuñ ni. pareen saay fésal liggéeyu nguur. nguur gu tegu ci yoon nag laa wax. parce que nguur bu wut ci yoon da koy baax. mais nguur goo xam ne mi ngi teg ay jéego yoo xamante ni bii yëg nga ni ñii kat. ñi ngi teg ngir jëm ci yoon ñooñ da leen war a accompagner jàppale leen ci li nga xam ne bii moom lañ ne d'accord jàpp naa ni ñoom bu ñu nekkoon foofu dina ki xam naa ni maas moom mi ngi ci genre mi ngi ci côté boobu mm. moo tax muy wax ak moom mais waa jii de saay mm. <laughs> <laughs> Mansour yëgut li xew de. yëgut dara lu xew. temps yii de moom xam naa bari nay information de. ñu ko baaxee rek. amul benn information saa noonu. Euh, jërëjëf euh, Mbengue ay ñu bàyyi la rek nga tàggatoo kentoon tuuti tuuti. waaw di joxante dig daje incha allah rabbi beneen altine ci kàttanu borom. ci kàttanu yàlla jërëjëf moo ngi noonu yéen ñi nga xam ne rek yéen bàyyi woon seen yitte toog du ñuy suivre ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di remercier euh, Modou Diouf ma ca Maroc ak ki nga xamante ne ni moo di Abdou Abdou Top Abdoulaye Diallo Serigne Fallou la remercier ñëpp ñu ñu doon bàyyi xel ci leen jox dig daje altine jàmm incha allahu rabbi